waaw mbay kontaan du baax rek ci question bi quoi vraiment. Aïcha maa ngi lay ziar vraiment question yi ma posé am na solo trop trop. dama ciy kontaan quoi ndax dañ ne sport boo xasee ba nekk sportif rek waratoo xool ma sàmm waratoo xool ma dem ba képp koo bokkal sport bi yéen ñaa yéen a bokk ndey ak bàyyi kenn ku ne yaa jàppale sa morom. donc yàlla dogal na xoyantaan man màgg na suñu Sénégal dëgg la xam nga wax moom gàmbi na dem fayet laay fa yàlla da ko pour wane Jérusalem tey dafa rafet tey jii man ma bëre xoyantaan ubbil ko bunt bu ñëw Sénégal fii pour bëre fi yaa ngi dégg man mosuma la bëri keneen ku dul xoyantaan sax moo doon mooy jël ndax wërsëgam lay jël man ma jël su wërsëg ma lay wax ne man ñaari combat man quatre combat laa quatre Aïcha xooloo ma de quatre combats laa jël quatre. quatre laa jël. Hmm. quatre mais bii da cee gën a fës maa xoolee daal ak zéro mais am na yeneen ñaari signature contrat yu pour yeneen ñaari mbir. ndax xamal moo tax tey boo nekkee sportif ma am ay gàllankoor yu bëri yu ma doon métti loolu wax dëgg yàlla nekkoon samay kilifa nekkoon fi ak man feebar yàggoon na ma nekk di kurkur ñoom talu moon entraînement talu moon man na sumay kilifa wér ànd ak seen sago rek yaa ngi dégg te depuis nag suma waajuru góor yàlla na ko yàlla xaare àjjana génn àdduna ba am huit jours ba ni may waxee woon nii rek ci période wallaahi jour tabaski dama ko entraîné tabaski ju jàll korte dama ko entraîné amatuma samedi amatuma dimanche kon nag xooltaan bi su ma diggante moom dafa war a leer waaw ndax li koy leeral mooy nii mais dafa am benn message bu may lancer rek ñi nga xamante ni ñooy euh, fédération bu Gambie du dara nag ndax xel bu poussé la xale moo ko for moo mën na koo for damaa bëgg bëri Sénégal yi bu ñu ñëwatee Gambie di bëri ñu leen di sagal te yàlla tax xawantaan bi ñu toog tey bi suñu première face à face su France ak Leket la nga waroon a def suñu première face à face moo ko jëmee kii ma ne ko jam ma ne naam ma ne ko da ñëw ma ne ko jam ma naam comme seen su ma joxee ndigal dinaa ñëw jàkkaarloo xoyantaan gan bi ci combat boobu def face à face jamee kenn nag il fallait que nga def lettre nga ne nag nga bind lettre ma ne jàng sorowul bu la neexee bind la moom maa bind yaa ngi dégg mais dama bëgg ñu ñu xam ne Sénégal Gambie benn la ndongoloo dafa mën a Gambie yu bëri yaa ngi dégg de mu bëri ba pare ñu àcc fa xaw ma ñaata at nangu xaalisam jox ñu ko xaalisam yaa dégg wul def nañ ko ko dama ba man bi ma ba ci moom mi combat bi waroon a mujj bëri ak Tyson euh, double Tyson combat ba yàquwaat encore ñu aj ko quatre ans téerali kaam loolu dafa war a dañ ndax bu yàggee da naan ñi loo soxore sénégalais yi te ñu amul benn Gambien bu ñëw Sénégal ñu lay xatal man suma première face à face ma jukkoon def maa xoyantaan nii ci benn rajo jamekee moo fay góor xaw ma foofu mais ba ma agsee barke rasul la histoire histoire bu saf saf na ñëw kon damaa bëgg waa fédération Gambie xam na ñun ay doomu la Sénégal ak Gambie benn la bu ëllëgee bu bëri Sénégal ñëwee Gambie dinañ la baax yaa ngi dégg làmb Sénégal la fekk baax ñun dof ñu gën jàpp ñu ba dem Gambie di ñu fekk ko seen règlement di ko yàq kon dañ ñu jàppale côté boobu loolu benn message moo lancé rek la kon mbëri Sénégalais bu foofu nan leen def comme seen i doom ndax ñun amul benn Gambie bu man mi wax yow ay Gambie dañoo suma kër nekk fa ay weeri weer damay def ba def lu ma xamul ndax bu ñu ñibbee ne Sénégal tere na leen kon nag nan ñuy teral li sport la day boole mais waru lay xaar delle yaa ngi dégg saa wu ñuy bëree combat yi ndaw yëpp ay jeex bu desee ko gannaaw combat bi yàq combat pour lan bu fekkee ki day bëri ñoom damay kay moo ko damay wax bu fekkee ki day bëri wóolul nga naka natt ngembam mais mbër boo ko ngembee da koy wóolu bàyyi biir géew bi bëri dem ba wóor si ay wéy ay wéy man maa war a wéy man ku Rasulullah su ma taxaw laay taxaw def ko kër. mais laa euh, ko doo préparé ko ba ak man damay toog préparé ko ba jël ko ku ogul dagg sama wéy bu dul damay téye loolu dafa ñaaw waaw ma daal li ma bëgg rek na respecté mbëri Sénégalais ñëw Gambie ndax mbëri si képp ku ñu takk gémba Sénégal ñëw Gambie aj nan la amatul benn mbër bu ne Sénégal ñëw Gambie foofu te aj toroxal te loolu dafa ñaaw bëri règlement yi am fii moo gën a tar fuuf moo gën a tar règlement yi gaaw fuuf yaa ngi dégg man bëri naa fi ba tàyyi façon xaalis bu ne daggaram ma ko mais que monsieur ma doggoon milliard ma kaas ndax loolu soo soo wërsëg seen wërsëg la mais maanaam pour en cas bëri sénégalais bu ñëwatee ñu ne seen i doom lan ñu bàyyi ajaate bi ak daggaate ne baamu yoon mais dafa am ay mbiri mbër boo yëpp la ko loolu dafa ñaaw loolu laa amoon lu may lancé quoi mais kontaan naa si question yàlla na yàlla sama borom